kii yi macha allahu rabbi ah tey nag émission bi Touré. Mhm. dañ koy jagleel ki nga xamante ni mooy suñu papa sunu xarit. Mhm. ah suñu soppe ki nga xamante ni wax dëgg neex la mhm. tey jii bu naan sénégalais yi dañoo mën a am na ci cër. koo xamante ni tey jii bu nee sénégalais yi dañoo civilisé ah yam ci seen bopp yam ci seen liggéey respecté doomu aadama yëpp jox leen cër. kookoy suñu papa Mbaye Dieye Faye. macha allahu rabbi di doomi nday Youssou Ndour di xaritam. wax dëgg ne xala di ka jagleel tamit émission bi nga xamante ni. Mhm. mooy émission allo douze tey bi. Mhm. waaw émission bi jël uppukaay di ko upp rek. ndeysaan di upp di ko upp ba nelaw. ndax xam nga moom moom ndax xam ambassadeur de culture la mais en même temps ambassadeur de mhm. civilisation la. moom il est ambassadeur parce que boo xoolee. boo xoolee fu mel ne que UNESCO patrimoine Sénégal. dañ jël Pape Mbaye Guèye Faye def ko muy patrimoine Sénégal ci wàllu solo. boo nee ni tonton Mbaye Youssou Ndour di jëlee ay disque d'or euh, musicien mmh. voix naturelle voix plus son yëpp ni nga koy jëlee noonu la ko Pape jëlee ci wàllum ne papillon mmh bretelle chapeau daal yi rafet loqno yi tuba yi rafet simis costume loolu dañ dem anis ko ñëw jël ko bind ko remercier ko. keroog de sol na costume boo xamante ci loxo sénégalais kon nag moom dañ koy ñaanal gudd fan. moom ak soxnaam su baax man de dëgg ne xaar saa bu nu tasantee. yaay ju baax jooju nga xam ni sunu yaay ju baax jooju nga xam ni mooy soxna sunu papa Mbaye Gueye Faye. Hmm. nee naa ko kenn moom ndax. maam Ndiaye maam Ndiaye. waaw waaw bu toogee dëkk dëkk dëkk ñu géwél. bi waaw nga xam da koo jël dafa jël dafa jël suñu Pape Mbaye Gueye Faye la dëgg la ay carotte dëgg la xooli carotte gi ko ay légumes ay lijum waaw nekk médecin am avant mhm. ko jëndee jar loo ko jëndee rek na ko te kaam baax jar na xeex ba bu toggee dëxuñu géwél ba nii waaw biiru xar baaru xar da ngay gis Pape bi waaw xale yi jóg. ndeysaan kër ga pëtëxoo ñu ëpp dëxëñ laay laay naa kër ga no stress la moom ah, kon di naa kër moom no stress la koy gërëm baax suñu papa Mbaye Dieye Faye mi nga xamante ni ubbukaay dana indi ngelaw ak i tamit moo nekk sénégalais bi nga xamante ni day wax di match tuñam mm-hmm. loolu histoire mm-hmm. ca New York laa ko gisee mm-hmm. ma ñëw gis photo Mbaye Dieye Faye ma laaj américain bi where is a man is this a noonu ko bëggee waaw ñu ngi mm. noonu. kenn nii man fonk. kon Papa Mbaye Dièye Faye ñu ngi lay nuyu di la di wax ni la émission alo 12 bi tey yow lan ka jagleel. Mm, te bu la ka jaglelee mooy jox nañ ko Super Étoile jox nañ ko waa waa 5-5. waaye jox nañ ko waa Midna gi yëpp. Mm-hmm. kon ba tax na fi mu ne nii dañuy dugg nag ci dans le vif du sujet. kon ba na bu ne Mbaye Dièye Faye rek dañuy dugg nag ci jikko nag ndax jikko ju rafet diñ ko xamal. tax na fi nekk nii ñuy ñaan xale yi def ko royuwaay waaye tey boo gisee yenn activiste yu baree bare bu ñuy wax lu leen mett ci réew mi ñaar ñett ñu daal saaga nday te ku ne xam na ni saaga nday dafa metti ci xol ku ne xam na ni saaga nday saa boo ko defee nit moo xam kilifa moo xam du kilifa loolu xam ngeen ni métti na ci xool kon ñuy ñaan képp koo xam ne am nga lu la métti ci réew mi nga bañ cee def ay daggi nday nag loi rek loi ah. rek loi rek saaga hmm. deux cent mille. Hmm. loi rek mais loi da koy tere nga loi buñ ko respecté. Hmm. saaga deux cent mille de trois mois da. waaw xam nga buñ defoon saaga deux cent mille. boo saagaa ni trois mois nga koy jox avance. caution. mu nekk six cent mille. police topp la ak ay yar yu baax. waaw wala yu ndombay pétaw yi. tant que fayoo caution bi doo am jàmm moom. <laughs> su ko léegi nit ñi bàyyi saaga léegi nag. Mm-hmm. nit tamit wax mm-hmm. dëgg yàlla mm-hmm. kenn warul tàngal xolam ba xolam di egg si di saaga parce que problème bi tamit loolu la kii saaga waru saaga waaye kii tooñ ba tax ñuy saagaate war na bàyyi tooñ ba kenn du saag kenn ndax salaat neex eh, neex xam ne gaaw naa jooy waaye ku ko du jooy waaye nag Touré Touré ah, foog ñu bàyyi parce que Touré réew saaga c'est la dernière saaga moom des choses indiscipliné rek la du leneen mais nag ñii saaga la tax ñuy saaga bu nu mhm. bëggee saaga yi arrêté dañuy arrêté waale li tax ñuy saaga mhm. ñaar yi la ñuy boole mhm. su ko defee saaga doo am tooñ du am waaye nag problème bi mi ngi nekk ci tey jii sañ naa wax ndax ku mel ni ki aadamu nga xam ne ay saaga rek la daan def yii bàyyi bu demee ba tuub aadamoo dem ba xam ni nekkul ci yoon ñu ko daal wax na nekkoo ci yoon aadamoo ci jamono yooyu boo nekka nekkoo ci yoon mu daggal la nday waaye dem na ba xam ni ndekete saaga lii problème bi mooy ki ngay saaga yow ka ka ngay tudd muy ndayam wala baayam nekk na koo xam ne yow. xamuloo ko def la xamuloo ko sax mu am ñoo xamante ni ñoom la bokkal nday ak baay ñooñu xamoo leen sax mu am ñoo ñu leen jur mu nekk mbokk gu yaatu goo xamante ni tey boo saagaa nit ki jàpp ne laal nga toute une famille laal nga toute une te loolu dafay xaw a diis de xaw a. léegi nag sëy saaga hmm. yi tamit. Hmm. foog ñu xam ne tamit saaga yi dafa bari façon. Hmm. saaga yi du saaga rek dagg nday nii technique. am na loo xam ne soo ko defee nit saaga nga ko. am na loo xam ne soo ko defee nit. ci penc mi. yow insulté nga ko. parce que saaga yi dafa bari façon. am na loo xam ne virtuel la. am loo xam ni physique la. am loo xam ne moral nga saaga. parce que saaga yi dafa bari façon. xam am na ñoo xam ni sax. fi mu boo leen jànnee nii boo waxee ñoom sax sànni leen loxo nii. Mm. def leen nii seen loxo rek. Mm. ñoom loolu plus saaga la. dëgg la munoo wax ba waxu ni ni yow danga ma saaga. Mm. parce que lu tax. parce que tey am na ay façon saaga yoo xam lu mel ni que lii lii saaga la nii. yaa ngi koy def non rek. non danga naan baaraam da ngay waaw sa loxo def mais xam nga mun nga bañ saaga nit verbalement se voix. mais nga saaga que gestualité. kooku tamit peut-être moom moo xoolul gestualité bu mu la mën a mm-hmm. répondre mm-hmm. moom mu def ko verbalement. loolu boo ko defee moo tax nit ñi yëpp yeeru rek kiy tooñ. lii nga def nii boo ko defee Amérique par exemple nga def ko nii mu capturé ko bu la yóbboo police da ngay écopé wu. dan lay écopé donc benn instant. am na ci loo xamante ni wax dëgg ne xel nan ko xoolaat bu ñun. Mm-hmm. tey boo xoolee yenn activistes yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew di saaga. c'est parce que xam na ni ñoom ci seen bopp am na lu leen protéger. Mm-hmm. mais yow mi dëkk ci dëkk bi na nga xam ne am ngay soppe waaye ki ngay saaga it am nay soppe te dafay xaw a metti lu la mënti def lu la mënti def it ak lu mu metti metti parce que tey jii boo xoolee tey damay jël exemple ci rappeur bu mag boobu nga xamante ni il a toujours défendu les intérêts du peuple le bas peuple ñi nga xamante ni amuñu kaddu wala seen kaddu lu yegg ci président de la république moom ci boppam moo daan yëkkati kàddu moom ci boppam moo leen daan défendre muy nit dof tey nit dof wax na lu ko metti wax lu ko metti ci xolam torop torop torop torop torop waaye ba ci boolee ay saaga lan ko jàpp tëj ko ci kaso bi. pourtant nit dof am day nag tamit moom tamit moom tamit fii am na ñu mm-hmm. fi saaga ay saaga ndey kenn jëli juulee mm-hmm. fii mm-hmm. bari na ñu fi def ay live toog di wax nii ci réew mi di saaga ay saaga yu metti kenn jëlu leen parce mm. que peut-être saaga wuñu état. Mm. saaga wuñu homme de poli homme de politicien. mais ñi ngi mm. saaga benn citoyen civil comme ñoom. fii bis ñu nga gis ay nit yu am ay problème mii si biir Sénégal nii loo xam di yoonu gouvernement. di yoonu parti politique di yoonu kenn ñuy live ñuy saagante ay ndey. mais fan yii rek. waaw xam nga léegi moo tax saaga. mais fan yii rek. waaw fan yii rek maa ngi seetaan Choco. Ah, Choco Choco bu Italie. ak Fatou Laobé mais Fatou Laobé yow xoolal sa carrière li nga jot a def yëpp. nga bëgg yow yàq loolu sa à dire aussi il faut que ni ñi. du utiliser seen xel tuuti. xew ba nu saagante ak lu mën a xew. maanaam nit da ngay am retenu am esprit de am na âge yoo xam boo co boo ca tolloo. bul wane ni man damaa pànk loolu da lay ah. manquel ah. loolu faat loo ak ku mu mën a doon. waaw mais nag kaay bul ni kenn yabu ma man damay saaga ay ndey. bul ni kenn yabu ma. mais faat mi ngi doogay saaga. waa mais dama nekk tamit yow lu mu xam nga tamit man hmm. faatu man gis nga man tamit sëy hmm. man dama bëgg yii fi ñu tekk si yoon. Hmm. Sénégal tab la boo xam ne. tab bi ñor na. soit. nga jël tab bi bës ko pacal ko pat mu toj. wala nga jël tab bi du ko màpp di ko raay di ko nëpp nëppal. muy gasu di lekk. il faut ñu comprendre d' abord ni ndax man damay seetlu nit day am nit ki problème. un am problème. Mm-hmm. nga gis benn un bi dem song benn huit di di boole ko ci problème bi te huit egseegun si moom yoonam nekk mana a yow duna am problème nga jël sama yaay dugal ko si jël sama nijaay dugal ko si jël sama mm-hmm. photo doom indi teg jël sama mais ñooñ seen yoon nekk si mais xam naa nag li muy dëkk li muy li muy Sénégal nag dafa wayoon doole nag dafa wayoon doole boo gisee reewande maanaam reewande du fa du fa du fa jur doom mooy tey da ngay saaga nit nga saaga nit ki yaakaar ne pare nga ci dan lay rey Amérique moom foofu réewande amul fa da ngay saaga nit mu dugg ci këram jël pistolet ñu la ko pëm ci bopp après affaire bi jeex fii Sénégal da ngay saaga nit nga yóbbu ko police mbokk yi ñëw xam nga da nga koy comprendre xel mi neexul fan yi dafa am problème xam nga moom mi ñu daal di nëpp nëppal bàyyi mu seet. saaga daal mais. saaga nday man man pour man. réglé wul problème. day jur problème sanction rek. mais nag loobe man bu doon sama sago. ku mel ni Fatou Laobé wala nga am posture bu mel ni Fatou Laobé ñëpp xam la nekkal une grande personne une grande personne mooy nga nekk kom ku mel ni kii Youssou Ndour wala Baba Maal wala Thione Seck wala Ismaël Lo du lu tontante ñooñu boo leen doon saaga fii ba suba du la wax dara dañuy naan pat bàyyi la ak àdduna moo lay yaral boppam dama nii dama nii parce que tamit saagante ndey ci ay magum magum jëpp fii fii fii fii Sénégal la hmm. il faut ñu régler Mm. saaga ndey ku siiw ak ku siiw la ku siiw ak gis nga yooyu. Cheikh mm. Tidiane dafa am foo xam bu buñ fa yóbboo nit ñi siiw ñi. dañuy dund ci ay jafe-jafe. Mm. man d'abord li ma njëkk wax moo di. nit dox dafa saaga gouvernement. saaga état. état éduqué ko. léegi tamit état na fexe tamit. citoyen simple bu saaga sama morom citoyen simple ñu éduqué la. mais loolu teg nañ ko loi la. mais loi boobu dafa rigueur ci ñenn ñi. balees ci ñenn ñi. ñenn ñi fan lant ci ñoom te yow da ngay sa xarit wala sa dëkkaay wala nit wala sa mbokk wala sa frère wala nekk di yéeg di wàcc. saaga boobu day mel ne parce que déjà chaque jour. nga bu doon ku saaga rek ñu rek kon jakarta man yeeg taximaan kon fi nekk nii. saa taximaan bu saaga ñu wàccale tali bi. jakarta man yi. nga saaga ñu wàccale bi. jël moto bi yóbbu fourrière. léegi sanction bi daw bu yàggee. day dem ba nit ñi yee eh, dëkk boobu. mais dëkk dëkk Yengtung bii nii amee Yengtung mooy kii am président chinois bu mag bi Yengtung taxaw a gàtt nii te bopp bi def nii rek mais kooku dëkkam daan yemale nit ñi téléphone dafa am heure visite bu ñëw si dëkk bi doo wax ak waa dëkk bi Yengtung si boppam laa lay wax te def petit teg bi nii man ki may ta lex yi du man xam naa ki may kooku dafa organiser dëkkam Yengtung tuddul loolu <laughs> yong waaw koy waaye loolu laf si la yong-yong demal dëkkam. yong-yong téléphone boo amul ku nekk si citoyen bu nekkay am téléphone déedéet. téléphone dafa laaj procédure bu. amul internet ci yëng cong amul internet. dëkkam doo fa dugal kaamilu alxuraan doo fa dugal bible doo fa dugal injil doo fa dugal tawret dëkkam amul diine cest ki ngay wax nii moom dictature la teg ndax da bëgg loolu am Sénégal. dictature mooy la. mooy mooy ngi nekk ci ordre. moom mooy buum. mooy bummi bu ko neexee xool sa famille daal ni yéen tey bu ngeen añ du ngeen añ te du ngeen plainte. non mais bëgg na nu yemb maa rek mu ñu njar ko bu mu gën a rek. ah jàmbe xaw a ja jàmbe jàmbeelu rek comme Yung Cung bi dafa diis ñu jàmbe jàmbeelu tuuti xaw a oyof tuuti d'une part moom. sanction moom man sanction moom dama bëgg ñu yar nit ñi. Hmm. su ko kenn ko ne boo taalee sa téléphone war a sinap. man daal saaga bi nag hmm. déglu laay fam bi. ndeysaan transition bi Adamo transhumé saxal ci loolu. jóge fii dem fee. loolu dana tax Adamo di nga xam ne yow suñu borom teral na la. ndeysaan parce que tamit. am yoon xajatu fi sax xaalis su dafa jeex. saaga ndey yooyu daal man a man damaa part personnel nanu nekk les exemples yi nga xamante ni tey boo daa xool sous région bi. kii tamit libéré nañ ko kanti mooy sunu borom ree ji. kan la ki fi tëjoon ndax ay ree euh, euh, rakku kii boobu rakku xaw ma Diop Fall boobu xaw ma kii. kan la kii nu mu tuddati Papito. Papito Kara boo ah, naa ko sax. waaw Papito ah. Kara moo tudd Libéré. waaw ak kii ak ah, beneen gaañ. Libéré noonu euh, ma ñaan Macky Sall. waaw mu ne la Libéré Ligue Dof. waaw ndax man Ligue Dof mm. loo xam ne bu ko nit tuddee. Mm. man nga ko la dëgg la parce que nit dof am na kayitu dof. mu gën a gaawee. mu ñibbi sa ay mbokkam yu ko na traitement am di ko faj. parce que nit dof tamit dafa am kayitu dof. ah moom rek a fi dese hardcore de. ah te moom dong dafa am kayitu dof américain yi sax bàyyi nañu hardcore moom ka fi dese hardcore. kon nit dof ñu ngi ñaan au nom de Allo Diouf. son na ma koy ñaan nga bàyyi ki nga xamante ni moom mooy nit dof ndax it wax dëgg ne xala boo xoolee xolam tàng mooy stade bi nga. xamante ni waaw loolu la rek ko nag. concert bee ko metti ah boole ci leader aussi nga xamante ni. ah ku ne xam na ni waa kër Ousmane yi. nañ ko ah, bàyyi ñoom ah, gis nga ni waa APR mel ci yow noonu la waa kër Sonko yi tamit mel ci Sonko ba tax na ñu lay ñaan monsieur le président yow ak sa ministère ñëpp ñu ngi leen ñaan ngeen bàyyi nit dof mu ñibbi ci këram. dootu ko defat na man. non nit dof nit dof dafa dafa juum rek. jóge xale la xamul dara nit dof koo xool xam ni mineur la ah dafa précoce rek. ah nan ko bàyyi mu génn nit dof mineur la. xale la xamul dara xamul dara nan ko bàyyi mu ñibbi këram. jërëjëf kon ñu ngi leen di tàgg ah, beneen yoon ci Allo 12 wa aleyka salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ayca jërëjëf.